moo di bu ñuy tudd bés bés dafa fekk ñaara daje jant bu fenk ñu ni bëccëg jot na walla jant so ñu ni guddi jot na bu ñu boolee ñaar yi ñu tudd bés waaw mu mel ni itam dinañu tudd weer weer bi paasewul lu yàlla bind mu daggee ci planète terre bi ñu wutal ko trajectoire am muy wër trajectoire boobu di ko def ci vingt bu ko defee ci vingt sept xaar suuf si mottali moom it trajectoire am deux jours mat mu nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñu ni weer dee na bu mi itam ñu ni jant bi muy wër trajectoire bu ko defee ba jeexal ko ñu ni at jot na kon nag bés ak weer ak at bu dul jant du weer du ñu nekk noonu nga xam ni nag ñett yi mënul nekk te jant amul ak weer noonu lay yonent yi ak awliyaaw yi shuhadaa yi ak saalixiin yi mënuñu nekk te muhammad nekkul ba noppi waaw waaw kon nag innahu shamsu fadlin hum kawaakibuha yudhirna anwaaraha linnaasi fi zulami mu mel ni tabarkal la kon bu fekkee ni jant ak weer yàlla def leen ñaan ci seen li mu leen sant ñuy dundal li yàlla am ci kaw suuf jant di envoyé ba rayon yi muy envoyé rayon bu ci nekk ak la ci war a dunde waaw wa tabarakallahu ñoo tuddee al ashiaat fawqa al banafsajiya ngeen di ko tuddalee rayon ultraviolet yi ñoo tuddee al ashiaat taxta al hamra ngeen di ko tuddee infrarouge yi ak yi ñoo tuddee rayon laser yeeg rayon gamma yeeg yëpp bi dana koy sànni ci kaw suuf lu yàlla bind ci jamadaat yi ci nabataat yi ci xayawaanaat yi ci bachariyaat yi bu ci ne la la dundal nga jël la la jariñ waaw moo tax am na ci yu nga xam ni bu leen yenn rayon yi laalee ñu ànd ko waaw ah. te yëpp yàlla daf koy organiser ah. moo tax nga gis ci am na ci yoo xam ni fa ñuy nëbb bu bëccëg jotee du ñu génn ndax bañ rayon yi yàq leen dañuy bàyyi ba guddi ñu soog a génn ndax mooy tax ñu man dund ah. mu mel ni noonu mu mel ñoom it ñuy jël ci ashiaat ashamsiya di jëlit ci leeru weer wi li ko jant bi jox di ci dund noonu la awliyaa yi ak nabi yiina yi ak shuhadaa yi ak saalixiina ku ci nekk ak ruuxaaniya bi ñu def ci yow noonu ngay taataane ni ko góor gi waxe woon li lay jëriñ ci al anwaar al qudusiya yonent bi ci bopam sax xamul woon ni ndeke sedd nañ ko ba parce que li ñoo al isra wal mi'raj te mooy li ñoo tudde de gi ñu bari dégg nañ ko mais cérémonie d'investiture la won di ngay gis ni ci wàllu aduna buñu un président buñ ko élire la ñu bàyyi ba benn période benn date ñu def cérémonie d'investiture dana am passation de service wala passation du pouvoir bu ñu defee yépp def cérémonie officielle yeeg yëpp takk yëpp ba noppi léeg-léeg ngeen gis ñu dugal ko ruq boo xam ni ña ñëwoon ci cérémonie ba duñ ko fekkee ñu jox ko secret arme nucléaire bi mook expert militaire yi rek loolu la yàlla def ak yonent bi investiture bi baytil maqdis la fa la commencé yàlla wax yonent yi ñu ñëw foofa pour xamanteeg seen mbokk ñu ñëw ñu présenté ko yonent yi mu jiita julli wa taqaddamta lissalaati fa sallaw kulluhum muqtadin wa anta al imam donc ñoo xam ne c'est le chef ñu soog ko yéege ci kaw pour def benn jumelage ci ñaari personnage yu dajee ci moom personnage bu jëkk bi mooy bi ñu sédd shahada mooy al bashariya zaatuhu al bashariya al tahira beneen personnage bi moom la ñu sédd xayb mooy al xaqiqatu al muhammadiyatu al bahira moo tax سبحان الذي أسرى بعبده نكلا يبري ديغو نيكو موتاخ ليلا فيريول غودي سبحان الذي أسرى واي مان دوكيل واي من مي ام سما جام مخم بوكم ما في مو العبوديه ndax dañ ko laaj ndax nubuwatul mulk nga soxla wala nubuwatul ubudiyya ndax nubuwatul mulk moom la ñu séddee daawud séddale ko séddee ko suleyman séddee ko aussi yusuf dem ba sédd ci une partie yonent yàlla muusa looloo tax wajal li wasiran min ahli ñu laaj yonent bi nag ndax nubuwa mulk nga soxla wala nubuwa عبودية من النبوة عبودية دم بقدينا كجامرك فمكو فلا عيب آية تمل سبحان الذي أسرى بعبده آه، ليلا جمبتي